je suis là je suis là fi mon ak sama xarit Boye danyeko. c'est un euh, ouvrier le chemin de fer man Aruna Mangane euh, man j'étais au centre informatique vraiment on a fait presque 37 ans de service Hein. bon léegi da ngeen fait fekk ñu fii pour di ñu à affaire passage à niveau bi vraiment ñu leen ci jox ay leeral ak tegtal yoo xam ne yii bu ñu sañoon nit ñi di ko respecté leeral passage à niveau bi léegi dañ ko électrifié légui buñ ko bu euh, bu saxaar di ñew dañu aviser gardien barrière bi comme quoi saxaar mi ngi ñew soit jogé na euh, lamlam wala jogé na gaaru ties buñ ko waxé mom bu gisee saxaar gi automatiquement day activer sonnerie bi bu ko activer sonnerie bi day sonner en même temps day am feu rouge pour signaler kii que xam nga feu rouge foog gis xamane c'est un danger donc day activer sonnerie bi activer feu rouge bi mais n'empêche avec tout ça automobilistes ak jakarta du ñu taxaw dañuy continuer di dem comme si rien si de rien comme dara amul or que saxaar gi day ñëw ba tiim leen nga gis ñu dem di ñëw dem di ñëw te kooku ça peut être très dangereux même bu saxaar gi day jàll dañuy yéeg ba ci kaw raay bi même pas à cinq mètres du train taxaw di xaar saxaar gi jàll pour ñu gaawantu dem or que kooku bu amoon déraillement ce qui est possible bu amoon ma ñoom yëpp lay ñoom ñëpp lay day ça va être catastrophique musiba day am mais ñoom calculer wuñ yooyu yëpp même bu circulation amoon saxaar mën nay dugg beneen saxaar di génn donc raay boo ko ñëwee dangay ngay taxaw avant raay yi ngay taxaw da ngay marqué stop même passage à niveau bu dee passage à niveau garde sax da nga war marqué stop te waroo jalonné ci kaw raay kenn du ko def parce que yenn saay oto yi dañuy fees si del taxaw ci kaw raay bi di xaar yeneen di jàll te kooku bu saxaar doon ñëw doo am foo jar saxaar moom bu dee waree ñëw rek même bu ñëwul danga nga war a taxaw après avant après avant bi nga xool bu dara ñëwul nga jàll mais fii vraiment ñun ñi toog fii toujours dañuy tiit sax xale yi nu leen neex la ñuy jàlle jakarta yi nu leen neex la ñuy jàlle oto yi doon la def ah li ñuy ñaan yàlla nag mooy daal yàlla suturaal ñu ba day musiba bañ fi am rek mais vraiment toujours ñu assisté fii à des yoo xam ne yi mës nañ fi assisté benn seen benn saxaar camion bu saxaar mbëkkoon fii c'est fixe mais keroog saxaar gi vraiment musiba naroon na am mais heureusement kenn gaañu kenn deewu ci quoi am na oto bu ndaw aussi boo xamee ne fii gis nga lii déjà gis nga ni ñuy jalonné ci kaw raay bi bu saxaa doon ñëw aussi nii la ñuy continuer ah donc euh, ça peut être très dangereux gis ngeen donc euh, vraiment li ñuy ñaan nit ñi daal mooy ku ñëem a respecté comme ni ñuy respecté code de la route ñu respecté ko boo ñëwee passe à nga taxaw bu dara jàllul nga dem bu sonnerie dee sonné nga gis fa rouge nga taxaw bu ñu fayee sonnerie bi saxaar gi jàll nga xam ne yaa rien nga dem mais bul jegeñ raay bi saxaar gi à cinq bu déraillement amee ça peut être dangereux vraiment loolu ñu amoon di ci wax di leen di leen gën a ñaax comme yéen. est-ce fi am ay accident accident am na fi fekk nañ ko fi heureusement mais amul accident waxaan ne bii nit de euh, faat na ba kenn daal am na dégâts matériels mais kenn mosu ci ñu ne nit dee na ci amul heureusement euh, ci sutura yàlla rek vraiment dañu ñaan yàlla aussi accident yooyu mel na mën a ñàkk daal bu nit ñi respecté woon code de la route euh, respecté affaire yi di ñuy wax ne leen boo déggee sonnerie gis feu rouge ngay taxaw.

gis farouche bi tax quoi bu fekkee nag dafa courant dafa coupé dara amul là yoon daf ko wax mu génne drapeau rouge taxaw signaler war a ni y a un danger mais bu fekkee ne courant am na nga dégg sonnerie dégg dégg gis rouge buy tàkk da nga war a taxaw mais bu fekkee courant dafa coupé déggoo dara moom il est tenu yoon daf ko wax mu génn taxaw euh, euh, yore drapeau rouge di signaler nit ñi pour ne leen y a un danger loolu la quoi

parce que lii tey bu ngeen ko dee génne nit ñi di ko gis xëy na dina leen fàttali lu bari daal que bu ñu gisatee passé à niveau dinañ taxaw même bu dee passé à niveau non gardé da ngay marqué stop boo taxee xool gisoo dara nga xool à droite xool à gauche nga jàll mais boo gisee saxaar di ñëw même de loin taxawal parce que mën nga engagé sa moteur fay et là ça peut être catastrophique moo tax boo gisee xaaral ba mu nga continuer dañuy ñaax nit ñi pour ñu gën ci Habib Ndiaye lañ koy wax quoi. Jakartaman di Thiès quoi. d'accord Aboubillah en tant que Jakartaman seetlu nañ euh, terrain bi bu dee ñëw euh, dañoo nit ñi dañu war a taxaw mais Jakarta yi tout le temps dañuy njëkkante ak oto lu war a lool. waa xam nga lan moo a loolu parce que buy terrain bi di ñëw boo taxawee circulation bu bëri am ñoo xam ne mën nañ koy tenir am ñoo xam ne mënuñ ko tenir ñoo xam ne am na ñoo xam ne tenir. circulation bi quoi mais am ñoo xam ne mënuñ toni circulation parce que circulation bu bëree sama genre gi da ngay da dem ci biir da ngay jaxase waaw mën nga def fii léego-léeg mën nga mbëkk man nga def loolu moo tax buy ñëw obligatoirement ñu njëkkante pour moom génn wala am circulation bi di gën a bëri quoi pour loolu Euh, mais loolu noonu lu sécurité moo tax ñuy jol ay ay garde ñuy taxaw fii di wax na oto yi taxaw leen ak jakataay taxaw leen même ñuy dox sax dañ leen di taxawloo mais nag njëkkante boobu waru ndax amul sécurité waaw waaw dëgg la loolu moom amul amul benn sécurité mais xam nga loo gis lu nekk rek parce que instant bi miin nañ ko xam nga ay comprendre nañu nag texte mais parce que daal noon daal lañ ko xaw a gisee tuuti daal waaw. est-ce que fi mës na am accident yu mel noonu euh, train bi di ñëw ni ñu di njëkkante ba choc di fi am. si si waaw am na fi mm, parce que fan yee passé rek man mm, man sa dem naa ko dama doon njëkk a train bi am kuy génn waaw ma dajeeg moom quoi waaw ma dajeeg moom si kaw tali bi quoi ah mais dara fekk ñu bira xam nga ñu ay jakarta jakarta man moom xam nga boo comprendre rek xam nga mooy loolu quoi. Saliou Ndiaye jàngalekat bu à la traité. nous sommes là en tant que anciens cheminots Je suis avec mon collègue Boye Danyako. Il a été à l'AMM comme c'est un, ouvrier. Moi, je suis un informaticien. J'étais au centre informatique euh, du chemin de fer. C'est Arona Mangan, quoi. Cheminot retraité. Tonton, est-ce que les passagers respectent les panneaux de signalisation Non, actuellement, euh, les panneaux de signalisation ne sont pas respectés, ni par les, euh, les engins à deux roues, ni par les automobilistes. Parce qu'au départ, il y avait les barrières, mais par la suite, euh, comme euh, on a quand même changé le système, on a électrifié ça. Actuellement, il y, a, la sonnerie et il y a un feu rouge qui s'allume. À chaque passage de train, bien avant l'arrivée du train, après à 100 mètres, euh, le gardien des barrières il active, active la sonnerie. Et il y a la sonnerie, il y a un feu rouge pour signaler qu'il y a un train qui vient. Mais malheureusement, euh, ni les automobilistes, ni les, engins, comme appelés particulièrement Jakarta, ils ne respectent pas même la signalisation. Tu les vois passer même à, 5 mètres du train, tu les vois défiler sur, les rails. Et ça peut être très dangereux. Vraiment, nous attirons l'attention des gens pour, pour vraiment dire de, faire beaucoup attention parce qu'un train peut enclencher un autre. Parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est pourquoi les gens ils se, mettent, même sur les rails en attendant que le train passe, or que c'est très dangereux. Parce que s'il y avait euh, euh, la, circulation comme avant, vraiment, c'est pourquoi on dit qu'un train peut encacher un autre. Un train peut rentrer en gare et un autre train peut sortir de la gare. Et là, si vraiment c'est le, cas, ah, vraiment ça peut être très dangereux pour les gens qui sont sur la voie. Est-ce qu'il y a des accidents ici Non, très rarement, mais une fois il y en a eu quand même. Une fois il y en a eu. Il y a eu une voiture que, heureusement, il n'y a pas eu de, dégâts matériels. il y a eu des dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine. Oui. Vraiment, une fois, oui. J'ai assisté à ça une fois. Ah, euh, il y a une fois aussi, il y a un camion un camion que le train a percuté ici. Heureusement aussi, il y avait un dégât matériel, mais pas de perte en vie humaine. Bon, mon, mot de la fin, c'est-à-dire de vraiment le dire aux, passagers vraiment de prendre toutes leurs dispositions pour éviter, euh, pour éviter de se mettre sur la voie. En tout cas, si la sonnerie sonne, il y a le feu rouge qui s'allume, vraiment, il ne faut pas se mettre sur les rails. Parce que ça peut être dangereux pour eux, mais peut-être qu'ils ne savent pas le, le risque qu'ils courent. Or que ça peut être très dangereux. Vraiment, nous continuons toujours à dire aux gens de faire beaucoup attention. Même en tant que cheminot retraité, quand on est là, quelquefois on est obligé de dire aux gens de s'arrêter. En tout cas, c'est pour éviter qu'il y ait des accidents ici. Parce que ça peut, être très dangereux pour tout le monde. Oui. Merci, je vous remercie.